Thank <laughs> you. Toujours dans votre actu du jour de ce mercredi 29 novembre 2023 sur la chaîne des grands événements VIP People TV suñ jógee ci bus rapid transit yi dañuy record binga nga xamante ni guerre des chiffres jëm ci wàllu parrainage yi nga xamante Benno Bokk Yakar, maanaam benn engouement la de xamante daf indi ci kanamu nga xamante ni mooy candidat di Amadou Ba dafa mel ni dafa xaw ragal nga presse bi nga xamante ni presse nga coalition yow di yeewee askan bi ginnaaw bi nga xamante ni kii di Amadou Ba annoncé na am na lu toll ci 3000 parrains dañuy gis tribune di presse bi nga xamante ni mooy bu Bougane Gueye Dany maanaam bind daal que lépp du dëgg ay fenn kese la maanaam Amadou Ba dafa mel ni moo gën a populaire kii nga xamante ni mooy Macky Sall ginnaaw loolu nag mu doon noonu benn guerre boo xamante ni doon na guerre des parrainages ndaxte ku ci nekk ñoom mi ngi yëkkati di yeey yàbbi ci ay chiffres yoo xamante ni nee na am nañ ko ci parrainage mooy li may wax souvent rek am naa 4 millions am naa 500 000 am naa 1 million ci benn bés loolu yëpp taxul nga am ay parrain parrain parrain yaa ngi koy soog am ginnaaw bi ñu xamante ni saytu nañu fichier bi xool ni que amul doublon amul dara loo xamante ni tey dugal nga ko ci alors que kooku retiré nañu turam ci liste électorale yi foofu la ñuy soog a xamee ni que ku nekk am nga nombre de parrain mais li ñu gis nii que daal benn guerre la boo xamante ni ñoom ñëpp di opposition bi di parti au pouvoir dañu sukkandiku ci benn communication boo xamante ni c'est juste pour intimider mais d'après li ñu gis fii dafa mel ni que daal li nga xamante ni Amadou Ba wax na ko am na ko ci parrain dafa tiital kii nga xamante ni mooy presse su Bougane Gueye Dany ginnaaw engouement boobu nga xamante ni journal am boobu di tribune ñoom daal titré nañu ko que lii nga xamante ni Amadou Ba wax na ko amu ko du dëgg ginnaaw nag élection présidentielle yi nga xamante ni ngi jëm le 25 février 2024. di doon benn annonce boo xamante ni dafa crucial jëm ci li nga xamante ni mooy république du Sénégal ci luur loolu nag la ñu sukkandiku pour une première fois ci histoire réew mi benn premier ministre boo xamante ni dañ ko désigné comme candidat en jour ci présidentiel yi par benn coalition muy Benno ko Yaakaar ginnaaw loolu nag comme niñ ñu ko xamalee kii di doyen El Hadj Amidou Kassé mi ngi xamal ne que daal jamono ji dañu nekk ci benn saison boo xamante ni saison bu inédite la ginnaaw situation exceptionnelle bi nga xamante ni mesure yu exceptionnelle mën na ko ci wax maanaam depuis que nga xamante ni désigné ñi kii nga xamante ni mooy candidat grande coalition Benno Bokk Yaakaar le premier ministre Amadou Ba faire bénéficier wu benn engouement boo xamante amul benn commune mesure ci ay militants ak sympathisants yi nga xamante ni population bi ñoom ñoo ko magnifié indi seen loyauté seen rigueur ak seen sens élevé boo xamante ni dafa jëm ci benn liggéey boo xamante ni tey suñ ci sukkandikoo kii nga xamante ni mooy Amadou Ba dafa nekk ki nga xamante ni ipso facto jëm ci benn symbole boo continuité lay indi indi benn émergence boo xamante dañ ko entamé ci excellence su kii nga xamante ni monsieur le président Macky Sall depuis 2014 ginnaw avancement bi nga xamanteni li di plan Sénégal émergent bi ginnaw bu mu émettre li nga xamanteni moy œuvre plan structurant bi warna mëna indi ben conduite bo xamanteni dafa jëm ci Sénégal émergent suñu xolé xayma total bi dina dem ci horizon 2035 kii di Amadou Ba muy benn synergie ak ay acteurs yo xamanteni concerné nañ ko war a liggéey ci ben relâche bo xamanteni mise sur pied lay indi jëm ci plan bi ñu dippee action prioritaire ñu dippee ko PAP 3 ak li nga xamanteni moy PSE en tout cas dal mi ngi xamal ni comme kii nga xamante ne mooy mentoram di la chef de l'État di Amadou Ba dafa nek ci ben temps bo xamanteni muy temps wu action comme niñ ko attesté jëm ci dernière sortie yi nga xamanteni ak lancement travaux routiers yi nga xamanteni ni suñ sukkandikoo ci région Dakar muy samedi bi ñu génn fofu ci terrain ak APES ginnaaw nga xamanteni conseil interministériel bu mu consacré jëm ci walu agriculture ba nopi indi augmentation ci prix li nga xamanteni moy mooy gerte gi yóbbu ko ba 280 francs ci ay nombre facultés yo xamanteni accordé nañ ko képp ko xamanteni ni béykat nga suñu xolé ci côté politique lepp lu ñu mëna wax ci tournée économique yi manam mi ngi effectué

mais ben baobab la bo xamanteni ni nos politique sénégalais moment coréen maîtrise ràññee maîtriser ko depuis 2012 nana a malgré li nga xamanteni moy perte quelques feuilles yo xamanteni ni morte la jëm ci ay garab yo xamanteni yu mag la manam demeuré wu fofu plus que jamais donc le résistant Baranopi noppi ak yarewu lépp luy ay nouvelle branche jëm ci adhésion bi nga xamanteni moy nouveau mouvement bi nga xamanteni ni mën na greffé wu ci sein wu li nga xamanteni moy garab bu gëna mag jëm ci aussi mouvement bi nga xamanteni moy mouvement satellite yi nga xamanteni day ñëw pour couvrir lepp lo xamanteni ni l'un lëndëm la jëm ci baobab bu mag bi nga xamante ni mooy garabu guy gi ginnaaw loolu nag mi ngi xam ne que kii di coalition Benno Bokk Yaakaar atum 2019 mënoon na nekk ki nga xamante ni mooy bu atum 2023 car population électorale bi ñoom ñoo évolué wu jëm ci ay conséquences yoo xamante ni suñu sukkandikoo ci benn logique ñu bëri ci seen ay parrainage mën nañ ko teg ci benn hausse ci espace su ñeenti at ginnaaw loolu nag muy benn presse boo xamante ni presse couché la loolu la dippee li nga xamante ni mooy tribune bu Bougane ak ñi nga xamante ni mooy coalition Yewwi Askan Wi maanaam preuve de malhonnêteté lañ def intellectuelle ginnaaw bi nga xamante ni essayé nañu nier li nga xamante mooy chiffre yi ginnaaw quotidien bi nga xamante ni mooy soleil def na rappelé wu daal bépp fait boo xamante ni comme li ko char Prestige Scott waxee 1846 1932 muy journaliste britannique boobu di fondateur li nga xamante ni mooy Manchester Guardian muy fee boo xamante ni dafa sacré jëm ci lépp loo xamante ay pour ñu étayer lépp loo xamante ni jëm na leader bi nga xamante déposé na ay parrainage ginnaaw bu recevoir li nga remplir na commission de parrainage yi mi ngi excellent travail bi nga xamante ni du député bi muy le jeune Abdoul Diagne ginnaw muy ancien patron maire ba nopi daal di abaat travail bo xamanteni fournir nako goudé ak guddeeg ak depuis nga xamanteni début li di parrainage lancé nañ ko pour écarter lepp lo xamanteni mën na indi ay faux batay tey mi ngi ciy yokk ni ka dal même su dee cloche bi fa sonné pour ay délégués régionaux pour que ñu indi li nga xamanteni moy sen ay collecteur de dossiers ñi ngi xamlé ni ka dal opposition bi dafa melni ne dafa am ben ragal bo xamanteni manam titangé bo xamanteni xamante ni dafa feeñ ci ñoom ci ginnaw bi nga xamanteni marron yi ñi ngay defarle lepp lo xamanteni jëm na ci touru candidat bi di Amadou Ba pour mu retrouver wu lepp lo xamanteni da fay doon ben bagatelle jëm ci 4 millions de parrainage yo xamanteni tay tey mën na créer ay excuses pour ñi nga xamanteni dañuy gis sen défaite avant ñuy egg ci soiru 24 février ginnaw bi nga xamanteni Amadou Ba actuellement mo nekk ci xolu sénégalais en tout cas muy li nga xamanteni dal moy guerre des chiffres des parrainages depuis boobu ba tey gis nañu ki di Déthié Fall annoncé né amna temps de parrainage tout ki di Bougane Gueye Dany annoncé né amna na temps de parrainage Amadou Ba bi mu annoncé lool nak ki di journal Bougane dafa dellu si pour xamal ni que loolu du dëgg ay fen la Amadou Ba mënul am loolu ndaxte su amee loolu daf mel ni moo gën a siiw kii nga xamante ni mooy Macky Sall ginnaaw loolu nag kii di Amadou Kassé te euh, tontu na leen. mom journalu Bougane bi ak ñi nga xamanteni moy opposition bi di coalition yow xamal ne que dal liggéey yi nga xamanteni Amadou Ba def na ko ci temps wu action la nek nekul ci temps wax raison pour laquelle mu am ko te lolu aussi mën na nekk ndaxte tay ñi nga xamanteni moy mooy Macky Sall lañu gëm su dee Macky Sall mo tan ki di Amadou Ba ñi jël sen parrain jox ko Amadou Ba ba noppi Amadou Ba même su dee as touti am na ñoo xamante bëgg nañ ko suñ ko ci yoké donc parrain yooyu mën na yokk donc cela ne veut pas dire que Amadou Ba su amé 3 millions de parrain rek mo gëna siw siiw Macky Sall ndaxte Macky Sall ak Amadou Ba suñu bolé son dolé un plus lay donc je crois que parfois quand on parle il faut savoir lire entre les lignes ndaxte Amadou Ba mën na wuti ay parrain alors que lu muy totaliser ci parrain tey Macky Sall mosu totaliser ci parrain ça ne veut pas dire que Amadou Ba moo gën Macky Sall mais ça veut dire que tey Macky Sall mi nga xamante ni na Amadou Ba comme candidat Kep ko koo xamante nga sa parrain pour parrainer ko ki nga xamante moy Macky Sall dang koy jox Amadou Ba donte tamit Amadou Ba même suy ben base bu ndaw amon na ben base bo xamante amna ñu ko gëm Amna ño ñoo xamante ni tey parrainel Macky Sall mosuñu parrainel Bougane parrainel ken mais Amadou Ba bu mu ñëwee xëy na bëgg nañ ko parrainel gis nañu seen yaakaar ci moom ñooñu suñu jëlee seen parrainage aussi dolli ko ci te Amadou Ba lu mu jëlee aussi ci ma Sall je crois que mën na doon un plus en tout cas muy guerre des chiffres des parrainages man nag li ma ci mën a jàpp mooy chiffres yi ma déggoo gum yëpp ci bépp parti nag laa wax A ba Z bàyyiwuma kenn man Tange Tandian gëmuma ci dara jàpp naa ni intimidation la jàpp naa ni manipulation la jàpp naa ni communication la lenn lañ ci jublu rek maanaam pour mel ni ñaari mbër yuy def face to face maanaam Modou Lo ak kii nga xamante ne mooy Ama de bi ñuy def face to face déggoon ngeen bu baax a baax Ama Baldé lu mu waxoon su ma la teeloon gis yaakaar naa ni 1000 francs du ma ko def ci combat bi waaye bu mu taxawee ci dugg arène bi xam na ni tey ëpp cachet bi ñu ko fay sax waroon na def plus que ci combat bi di ko may ba 24 coups temps de parrainage ba dépôt yi jot ba nga déposer ñu vérifier xol yan ñoo ci jaar yoon yan ñoo ci jaarul yoon bobu lañuy ñuy soog a xam ne que kii am na temps de parrainage waaye ku mu neex tey nga yeewu nga ne am naa cinq millions de parrainage man mi sax su ma neexee tey ma yeewu ma ne am naa dix millions de parrainage maa ngi nii samay fiche dajale ay feuille bind ci ay tour yu ma neex en tout cas muy li nga xamante ni mooy guerre des chiffres jëm ci wàllu parrainage bi